comme temps booy rek ah Papa Ndiaye damaa defoon yëfi élève démb maa daw jàng <laughs> maa dawoon liggéey <laughs> newoon ci ay yitte ak yëf waaye alaaji Papa Ndiaye ci ak aas yi ñu ngi fi woon euh, gunge téléspectateurs yi nu ñu koy defee bu 16h jotee destination bi jëm 17h ñu boole lépp loo xamante ni utile la ak agréable juste au plaisir de nos téléspectateurs alaaji Papa maa ngi lay bëggee bu baax a baax. dama nag maa manqué dem. da nga maa namoon. xam nga plateau dafa am chef ah mais génnal ci yëngate. non nit day am patron. génnal ci mu lay diriger. ngay tegu ci yoon. mais boo fi nekkul démb li ma def ñëpp nee nañ baaxul. Eh aywa kenn waxul loolu ñëpp a wax loolu. yow yow yow yow xam naa ne man avec ou sans man da nga koy neexal ba mu neex. loolu nga yaakaar neex moo ne ci yow neex. waaw xale yëpp nee nañ neex daal ne ci Papa Ndiaye. man sama lépp a neex. te lépp a neex. lii la yàlla nag. xale yee ko wax. yaa xale yan. waxuma ko de. ah xale yi nee nañ. yan xale. neex neex. ah daal ne ci Papa Ndiaye. ah jamono jëkku neexul yaa xam. mais tey du yomb de. du yomb waaw ah, du nuyu ñi ci hôpital yi xam nga ñoom da dañuy suivre léegi ah. ak ñi ci prison yi ak ñi ñuy kontaane yëpp. Mm. di leen wax ni tey la tey tey moom day gën a neex ndax booy bi. Mm. booy bi waxuma la dafa juddoo ci ay instruments. Mm-hmm. ndax papa waaye booy bi. loolu kese doyul da ko cee boole dem ci mbedd mi nag. Mm-hmm. di ko ñàkkanteeg booy yi di mbapat. Mm-hmm. dafa mbapat de. guerre naag booy yi guerre yu métti man fii moom ku fi teg rek xam naa ni cooki nga ay quelque cooki. def ay yëf waaw ay cooki yu neex xam nga cooki góor da koy def ci mbedd mi tuuti ma doog lay teg fi nag mais claviste bi moom it dafa mel ni ñëpp lay jéewal booy bii <laughs> ah. ah fu ne nga koy fekk accord yëpp moo ko yor Kéba Seck ah, bi fu ne laay dajeeg moom fu ne fu dem fekk ko fa man kii dé dégg naa day jéel sax Ndiaga yenn saa <laughs> <laughs> mais baaxam ak yaram moo ko may loolu. waaw boo baaxee yaru gaa yi lay ñeme mën li ngay def dañ lay ñeme dëgg la. mais tey moom xamal ne naam am gel bu bees. tey jii ma gis fii ku ma gaaw la. Eh, non da nga ko bëgg a jël mënul demee noonu. Papa Ndiaye Papa Ndiaye Papa Ndiaye nga ko ku fi ñëw nga jël ko daa bari gel nag bu ko nob de doxaan la man wooykat yeeg fecckat yi awkat yi ku fi ñëw dalay jël mi ngi noonu téléspectateurs yi bëgg nañu leen bu baax baax ambianceur d'or ñu dalal koo xamante ne xale la ci at yi waaye tubaarkàlla ndaanaan la ci baat bi ndaanaan la ci mélodie yi ndaanaan la léeg-léeg ci octave yi muy yéeg fa muy woyee ci registre ba muy nekk léegi-léegi dinañ ko découvrir ci li nga xamante ni moom moo di émission ambianceur bi nga xamante ni bari na ay talent yu mu wone nga xam ne fi mu ni bi dañ koo xewalaat de CFK fan yi daa xew woon engagé di ko bëgg rey. nii rek. le meilleur de sa génération. Papa Ndiaye taxaw nii rek nga xam ne ku ne way na sama kanam. ah yow tamit maa da ngaa ne. mais tey moom Aline bëgguma mu nuyoo. Hmm. na way nuyoo. mu way soog a nuyoo maanaam way direct doog a nuyoo. mu dugg ci benn wax. waaw direct. kon jeex na Alioune Gueye la ñu dalal xale la ci at yi waaye wax naa ko léegi léegi ndaanaan la dañ koy découvrir léegi léegi sous les antennes de la 7TV Alioune Gueye yaayu sant yaayu man njariñ yee sama yaay bay la di jooy laay dogal jaam yàlla leen yàlla yaram yàlla la yeneen teeroo yaay yaay kumba gay yàlla la yàlla yàlla yonenteeroo alaaji mbargaan faal yàlla la yàlla yërëm yàlla la yonenteeroo baay yërëm jaam ndeysaan xam naa ne situation sera dédiée à tous les enfants qui ont perdu leur maman yaay nekk loo xamante ni li ñuy wax amul remplaçant dara mënu ko remplacer ci àddina Aline Gueye wooy wi nga ubbee tubarkalla daw na yaram xam naa ne bari na téléspectateurs yoo xamante ne ñu ngi toog di seetaan actuellement am nañu nostalgie nam nañu seen yaay Papa Ndiaye waaw mais man dama ko bëgg laaj dara ndax moom li muy way nii da ko dund wala xam nga waykat day jékki rek bëgg a way yaay rek way yaay mhm. ba xam macha allah li yàlla def moom xam nga ne àdduna moom ba xam sa dafa génn àdduna daal waaw maa ngi nuyu Sénégal man Alioune Guèye. Mhm. di nuyu waa Guédiawaye gépp gi ma bàyyi mhm. ko. Mhm. ah di leen wax ni li may way nii dama ko dund. ndeysaan yàlla dafa dogal ni damaa teel a ñàkk yaay. ndeysaan di ñaanal sama yaay fi mu nekk yàlla ko a. amiin waay ak yaay dem yëpp di ñaanal tamit sama papa fan yii. papa Mbargane Fall paa bu baax moom tamit dafa génn àdduna fan yii. macha allah waaw waalo a way jur moo xam bu góor la moo xam bu jigéen la. dëgg allah damaa teel a ñàkk Oh. moo tax ma way ubbee morceau bi. macha allah mooy joué nag moom laay ubbee. waaw li ngay ñaan nii nag yàlla na ko suñu borom teeru rek. Hmm. comme li nga wax rek ak Seydina Mohamed. Hmm. waaw du tee nag gis naa la ñàkk nga yaay waaye am nga fulla hmm. am nga fayda. xam nga fi nga war a dem. duñ la fekk dara ci lu lay xeebe. waaw kon yow it sa yaay fa mu ne mu ngi kontaan ci yow. te boo gën a góorgóorloo rek mu gën a kontaan ci yow. très bien wolof day wax ni ku wutee tax a ñàkk boo teewoon itam doo am. dégg li toogaay bi nga war a toog ak muute fi yëpp nga war a toogee. et eh, fexeel ba foo mën a nekk ci àddina rek nga nekk fierté loolu rek moo ci am solo dañu lay bàyyi nga nuyoo ak téléspectateurs yi ñuy seetaan yépp rek eh, nuyoo gox ba nga bawoo mënta ñàkk bu ñu paree nga dem beneen morceau ambianceur daal di dugg eh, ci li nga xamante ni moom moo di tempo bi waaw maa man Alioune Gueye dama nekk xale bu ndaw dëkk Guédiawaye mhm. encore une fois di nuyu waa Guédiawaye di nuyu Sénégal ndax ku ne Alioune Gueye Alioune Gueye doomu Sénégal mhm. du Guédiawaye kese ñoo ko moom doon te fa yeewoo fa laay nooyee waaye géejawaay lépp lu ma mel rek waa géejawaay la mhm. di nuyu sama papa Souleymane Gueye booy géejawaay bari na ay artiste waaw nekk guitariste bu mag bari na ay artiste kay waaye man dama juddoo ci su musique laa juddoo man ah. man bokkuma gars la wax léegi dinañ ci ñëw yeggaleel ni du ma ñoom te duñu ma la juddoo de instrument <laughs> yi la juddoo de Souleymane Gueye mooy sa baay loolu rek doy na sama papa def na lu ne si aar guitariste bu mag la yàgg joué ndaanaan bu ne ah. Fatou Guewal mhm. Salam Diallo Djibi Dramé mhm. su ma limee damay juum parce papa coon dem si yàlla si lii nag groupe Jules Famille la ay xale ka salet waaw li ma gënoon neex sax mooy ñëpp ñëw waaye. ok konte boo gis si benn la commencé. loolu mhm. dëgg sant yàlla di nuyu képp nag. nga xamante ne yaa ngi bëgg Alioune Gueye. très bien su ma nañu dem ci beneen morceau ambianceur la ñuy wax tey y aura maximum d'ambiance et peu de parole Alioune Gueye ñu dem. morceau bi maa ngi koy may képp kuy tijaan man Alioune Gueye. ah loolu mënul ñàkk di ko may sama sëriñ. ay waay Pape mi sëriñ Abdou Aziz laal dara. tey ma ne ma la direct ay Pape dimbali <laughs> ana tiijaan yee man Alioune Gueye ma leen di woyal tiijaani seex yi maa ngi seeti borom jamono ñu ma nga tëdd Si Maalik boo ko masaan présenté say àndandoo du leen fàtte saa leen gisee du leen laajte xalifa moo ma ta doy xalifa mamata anda papa njaay ba kër dara maanu way ko way ko way ko aram loo kumba jaam fawaatu mi ci gaaya coppati sambay naar biyaare sambay naar faramisal sambay naaye ajaratu yaasin géy ca yaayu mbaya mel yaasin géy ajaratu yaasin géy ay yaay ak bëgg sëriñ mi ci jawaar sëriñ Abdou Talib sëriñ Mansour si Malick borom daara ja yaa xaalifa Tijaan. yaayu mbaya Yacine Gueye yaayu mbaya. Talib Cheikh bi yaayu Mouhamed Tijaan. dagg leen mbay woy leen. ñun mbayee maam dañu daan woowee xalifa bi sunu maam ja dem na noonu tijaan yi sëriñ Abdou Talib bi sëriñ Mansoor yéen ndeysaan gone yi juddu xamuñu mbay te naan mbay mooy waxoon suma rusul woon sama baay ku ma woo si fata ma wuyu la baayu sëriñ daara jee soxla ee ngir jotaay xalifa moo mata doy loo xalifa moo mata àndal marasu kammu gi ñaawee duñ ko la lekk dala naan ngir waajal seeni gaani yéenay tijaana waa kër Cheikh Omar Foutiyou Tall ñoo bëgg Cheikh waa kër Cheikh Omar Foutiyou Tall Papa Ndiaye Tidiane wax leen Mousdar Sidi wala Mousdar Sidati ay ma way seen maam de Serigne Cheikh Yacine Ndiaye du sambay naar biyaare sambay naar fara misal sambay naar tiijaa kontaan nañ de ah, taalibe Seex kontaan nañ de. Ah. tubarkàlla euh, su ma rek su ma xarit ah xaali Samb ca Tiwaawan moom mi ngi ñuy bàyyi xel mi ngi bëgg ci morceau taalibe Seex yi way nga ba koy dara maanaam loo kumba ci am si rivagué démb mi ci jawaar borom bu ne carré bi moom la ñu dénkoon soxna Astu Kan mi nga xamante ni Serigne Abdou Amin Kan mooy baayam kooku Serigne Modou Xalaas sama xarit bi. sunu sunu xarit bi. booy bokkal nekk sunu moo du xalaat dafa gaaw de. <laughs> waaye lu ñu jox maaraan la koy xool. boole koog ñun ah ci biir. <laughs> kii laa bëgg man nga way mooy maa fi Paa Ousou. Paa Ousmane bokkum yaay baa koy bëggee bu baax ña nga ca Kaolack nangaat ñoom tubaarkàlla seen maam moo jur soxna ñu dégg mais tamit la teg la <laughs> ñu teg loolu ci bëggee génn. yaay sama ndel bi démb damaa jëlaat sama karaw bi dugal ko. ci guddi gi laa dugalaat sama karaw wuri karaw Modou Lo mi ni ma def ñaaw na moo tax Pikine fi ñu toll nii jaaykatu kab yaag mbaxana ya ña nga fa mel ni tulleeg man mais naa liggéeyal leen de moom xam na ni moom fu ñu mënti daje maa ngi moom day métti ni mu sonalee waa Pikine bu jeex en tout cas Aliou moo gis am na retour waaw bor la bor rek dañoo lebal amul mu problème ñu ngi koy xaar le premier janvier incha allah mënul ñàkk ah. mais Aliou Gueye <laughs> bi nga nekkee xale jàng école mm. daan nga daw jàng waaw parce que parfois tamit nan nga daw liggéey. nga jékki-jékki mel ni naa bis kër. lu ma dul ñàkk faaw ma. waaye du fi école def ci liggéeyukaay. du fi mbañ daa daw. Ah. daw moom fi nii. ah daa xew man waxuma ak yow de ku moom xar mi nga bàyyi nekkee élève xale di jàngi. bul daw jàng dangay dem ba topp la sa liggéeyukaay. Pape génn ñu ci kaar bi s'il te plaît. génn ñu foofu da ngay di daw jàng te kenn du la wax lu xew. mais tamit ah, yàlla baax na daw daal du fi mbañ. Ah. fi mu toll nii ñëppay daw. may mu naa ngi daw. ah Papis Mbaye daw. Eh, daw gi nga ji ñëpp. Eh, ah, persil tey daw yow may mu ne kañ ko gëj a gis. tey papa ji lay wax. papa ji lay yàq ma la waroon mu eh, daw. waaw kon na ma ma ne mu ne ma père. waaw dépense laa wuti. loolu xamul daw. wuy Daouda man mu si. Daouda si di ñëw. mi ngi yàq mag ji. eh voilà kii laa bëgg. yàq mag ji Daouda. ok kon Daouda bi doon joué guitare yéen a bokk papa. ah bon ndeysaan. mais nag ku a gaaw. <laughs> ku gaaw a ngoog. waaw moom mënoon naa zéel Sidi Diop doo ko daw dañoo yegg rek mu daw. dañoo yegg rek mu daw. ah dégg ba pare mais sama goro la nag tey. ndeysaan ku ma ah bon dégg nga li muy la famille est musicale. la famille oui. macha allah. ah kii di clavier yéen a bokk ndey baay. benn baay. kii. ñoo bokk ndey baay. ndeysaan. kon yéen am ngeen keneen kuy tama. orchestre bi mën na de. <laughs> orchestre bi na. kër gi maanaam am na tamakat. waaw. dara laaj <laughs> kon xaaral ma ñëw ci yéen nekk seen feccikat orchestre bi daal di mën nag ah. voilà mënul ñàkk ñu naan leen wax dëgg yàlla. Ah. en tout cas si samay njëlbeenu kàddu maa ngi koy wax. maa ngi naan xëy na mën naa nekk xale ci ay at. Mhm. mais bu ñu ko dégloo registre bi muy woyee façon musique bi muy def. moom ci ay accord lay way. wute na ak musique bu yu bari di. papaam da koy dóor ndax day toog papaam day toog ni papaam na guitare ci la juddu bu dégaamee paa bi konk dootu ko defati te ci accord rek la mën a way. <laughs> ci accord rek la mën a way macha allah. mais nag Mara hmm. daal moom du dem almadi du dem gaynde hmm. moom daal moom xanaa gars yi dañ ko laal. gisoo ko fenn. gisuma ko fen man daal xam naa ne daal mbedd yi moom. géejawaay kenn jéewatul mariage moom rek la ni woo nag moom. moom moo ko man moo ko mën Mbadou. te tey xaw ma lu mu indiwul am na sama benn doom boo xam ne moo koy lëmbal. wuyaay. maa ngi leen di seetaan de man nii du ma fen du ma nettali waaye lu ma yëg ma teg ko. <laughs> day siiw <laughs> loo yëg siiw Aline Papa Ndiaye mi ngi laaj lu am solo lu waral gisaguñu la actuellement ci tendance. nga fës carrément fës nga ma mais carrément. mais Mara man nag damay sawar. Euh, tontu ci loolu. Mm. parce que euh, boo nekkee xale dañu naan la bul yàqamti dara. Mm. Mm. donte nag maa ngi génn. xale bu ndaw la mais jot naa tëgg Sorano jot naa tëgg Cissesse jot naa tëgg Saraba. def nga Sorano def nga Cissesse. Villa Cristal def naa ko te day fees del boo Sorano c'est une grande salle de. tëgg naa ko mu fees del et une salle mythique. barke unité bi Serigne Baba. 1200 places. billaahi. ah bon xale bu ndaw. mais yow booy ñan ñoo ñëwoon. Sénégal jaaykatu koko yi ñan ñan ñoo ñëwoon jour boobu. <laughs> man samay sa nag dañuy civilisé set waa géej waaye ngay wax. mais fan nga jëlee public boobu je veux dire nekk xale bëgg lu may def mën lu may def. boo xam ne donc boo wootee dañuy ñu wuy si. man nga gis nii rek mais staff baa ngi lu tax doo def li Papa Ndiaye wax Almadies Villa Cristal. dama koy def gaynde non chaque weekend laa wax existé chaque weekend. dëgg sa bopp maa ngi si ay projet yu bari. waaw mais lu la manqué lu la manqué jàppale wala xam nga ba xam maire xam nga suñu xarit waaw mën naa ne jàppale bu ma bu ma war dëgg moo ko manqué waaw li fii lañ bëgg a ah, waxtaane maanaam boo nëbbee li la manqué du ñëw mais am naa sama yaay bu baax may dimbali bu ñuy wax Aminta Niang am naa sama papa ju baax bu ñuy wax Serigne Abdou taalibe Serigne Mansour Sy Malick am naa sama papa ju baax muy Cheikh Siré Penda si moom tamit may taxaw bokk may Amadou Ba li ngay wax man ma xam dara aar dafa metti bu amul ñu ne sa ginnaaw rek pour ki démb doo dajeek ndaanaan bu mu ne ma musique xaalis a koy def. dëgg la ak xel mu dal. bu fekkee da nga bëgg a toog xalaat bind. boole koog di xalaat sa dépense suba wala sa ndékki doo bind luñ xam man damay ragal sax ngay bind ndékki li ndékki li ndékki li ndékki li ndékki li ndékki. papa yaay. Mhm. man dama nekk waa loolu nekk doomu gor ñaari sukk gis naa loolu. néew ma ñaan waaye damaa gore damay bëgg toujours di ñàkk jariñ. mais nag boo yéen dama dara de yéen ñi yéen waru leen tiit du ma tiit du yéen seen histoire yéen seen histoire waa géejawaay koy nettali parce que fii ñëpp a xamante man fi ma juddoo xam nañ sama yaay xam nañ samay waajur ñun ñëpp ay mbokk lañ mais yéen bu leen tiit dara gudd fan ak wér rek seen yaay liggéey na ko de da nga da nga yaakaar ni ñun xamuñu lu bari jaru ngay dee boo ñun xam nañ lu bari waaw dañu fekkee aar bi bu leen tiit jàpp leen rek góor góorgóorlu yéene ñëpp ku yéene ñëpp nag yàlla yéene la waaye ku yéenewul kenn yàlla du la yéene dara yéeneel ñëpp fii dara jeexu fi xoolal waykat yu mag yi way nan ba ami kër ami doom ami oto te dara jeexu fi yéen ñi di ngeen way ami jabar ami doom ami kër te ñeneen ñi buñ ñee dañuy bokk aar amul siis waaye ku mënul bokkoo ku mën nag yaa ngi si biir waaye ñun nag maa ngi maaraa ñun moom su ne ñu ngi bëgg a rey yeneen télé yi waxal rek nag Aliou Sénégal yëpp a kontaan si yéen li ngeen di def ñun faralaata wuñ parce que li ngeen di def sóoraale wul si dara seetu wala si dara lii bu ko télé yëpp doon def kon aar bi tey dina am ñoo xam ne dañuy am guerrier la de. mais problème ngeen di am pour dem ci télé yi problème ngeen di am. pour am émission live waaw mais nag yàlla xam na. dina ñëw. wax naa la ko léegi yaay liggéey na lépp dina ñëw joob rek. lépp dina baax Alioune Gueye la ñu dalal ci 7TV seen émission ambiance heure muy wéy di door di neex dañuy demaat ci beneen morceau seen Alioune. léegi dañ leen di may mbëggeel rek. mbëggeel. comme mbëggeel moo yëngal réew mi. waaw moo mooy feebaru papa Ndiaye mbëggeel dafa dis de. mooy feebaru papa Ndiaye je le donne à mon bébé ma fille. bis bu mbëggeel oyofee rek dooley ñu nekk dooley fu nu jëm jomb naa di dox ñu naan Aliou Gueye moo def lii loo dul defal sa yaay di ko ñu nekk dool fu nu jëm maara bëgg nga ma xol baa ngi nii dégg ne maara xadi waaw na de waaw waaw waxtaan rek fi may wax ak am na ñoo xam ni Papa ñi ngi si hôpital amuñu lu ñu jëlee ordonnance oh, oh, oh. am na ñoo xamante seen yaay sonn na lool feebar amuñu luñ ko fajee su borom doole yi di dimbalante seen biir ñu ne doole yi fa mu jëm waawaaw wa amul woon bébé man dama lay gërëm ndax yaa ngi nekk sama xol sama xol bi rek lay dee fi nga ma yóbbu moo sori si xeetu baax baax rek mën na ma rey mer naa ci xale bi xol bi mu jël El Hadji Papa Ndiaye Thiou l'international l'intercontinental l'inégalable des danseurs El Hadji Papa Ndiaye Thiou borom bi. Ama Baldé nag sax boobu baa ngi métti. dama ko dóor dóor dóor ba. fëgg bi mu koy fëgg. sa yuur yi dina yëngu de. man defet bi man na jàpp daa mel ni mbuutloo yi mu doon def avant ci yëpp ci man la ñëw. damay bàkku Ama Baldé rek di dóor sama bopp bi te def ma dara. keroog nag ndeysaan Pikine ndam rek la ñu waroon am nag. yàlla moom buy dogal dogal na rek. mais li gën ci ñun lañ dem. waaw ndam ñu ñëwee nit moom foofu lay ne. Alaaji Pagaay Alaaji Pagaay Mbay ànd ak euh, xale yi. tubaab bu bees teg ay bagages. teg ay bagages. tarara tak tak tarara tak tak raakit raakit. loolu loolu dafa fort. moo tax dina yàq sama. <laughs> sama amaa bi lay bañ a dégg <laughs> mais yàlla day ñëw ak ay dogalam amaa ñoo ngi koy encouragé xale la il a l'avenir devant lui Modou Lo njëkk na discuter titre roi de arènes ak Bombardier ñàkk ko yàlla mayaat ko chance mu am ko ci Eumeu Sène donc am nañu yaakaar ne Ama dina ko am ci beneen combat. waaye mais fii kan moo fi bëri te daanul. làmb ak daanu ñu bi kat feebar yeeg am yeeg ñàkk yi loolu ci ñun la bokk sama xarit bi fan yëpp daa feebar ndeysaan kan la pagaay defet bee ko jàpp fan yëpp waxoon naa ko de parce que Modou Lo mën naa ko romb muy tudd pagaay di tudd Ama Baldé ah? ñoom ñaar ñëpp la boole ñoom ñaar la boole ñoom ah. ci booy bi léegi waaw bi mu jógee di fecc sama xel dafa dem ci Fallou Dieng ah. si waaw dafa jóg fecc ree rek ndeysaan ma gis sama grand ba ku mu jàppale Mhm. moo njëkk a yóbbu France. ndeysaan ma nar a daw sama nijaay na ma. wuyaay bul def kon. kon naroon nga koy daw. man ah. <laughs> waaw bëgg naa lii bëgg naa artiste bu neex. ah sa papa message ma léegi. ndeysaan. day pelente papa naa def lu gis na sa kale nga kale doom. waaw jar na ko parce que boo ko pelentul. procureur mooy autosaisir dugg ci dossier bi dafa ngay waye moo neex. dalay bàpp wala d'accord dalay bàpp yow yaa ngi da ngay sëyi kay. bul nangu dalay bàpp. wuy ma kër gu am piscine. Mm-hmm. Aziz Ndiaye joxe na 5 million ma teg ci 7. Mm-hmm. niveau bi yéeg. Mm-hmm. oto ak chauffeur. defar ki benn album bu bees la nangu ah, xam nga ay waalo waalo ngay sëy. yaay laay la ba ba gaay dugg si. léegi ko nakkat ko nakkat ko boo ko mënee rek ñu may la boo ko mënee rek jamal boo boo mënee waalo waalo ñu may la ko. billaay duñ la ko may. booy bi du la ko may gars yi def attention ci moom de. dagañal ba noppi kese de. dagañal ba pare ñu soog a xool ndax dañ lay may xale bi mu dee. waalo waalo waalo waalo. xam suus la kenn du la may dara yow. lu tax yow dara doo ko am. waaw waaw ko am suus la suuf feeg cosaan wi. waaw waaw koy suus. yow duñ la may waaye yow suus damaa neex de. dara Papa Ndiaye. yàlla na yëpp xëy ba mu des suus. ba boo yeboo boo yeboo ñaan ci loo mën de Sénégal lu na xew na fi. mais suus du dem. mu laa cegin. yuusa raas. Eh, jalgati yëpp. cumbux lu ne xew na fi. léegi suus xew yi beneen ñëw. ñépp mën nañoo xeeyu mais suusu ndikku rek. yaay yaay lay di laax. fan yii nag Aline maa ngi ñëw géej waay eh, mbaari bi la toggal guddi gi. te yoon na nga xam ne waxtu wi li ñu ci cërale woon mi ngi xëccu jëm ci jeex El Hadj Papa dañu bàyyi seen naalun mu wax ñu xëy na lan mooy nekk projet yi bu fekkee am na date bu nekk sa kanam boo préparé single. wala ba léegi duggagul ba léegi waaw. da nga label yi wala benn label la ñëwul wala yow yaa ragal. loolu mooy nekk dernière question bi après nga boole ko ak projet yi jaar noonu tàggatoo gërëm ñi nga bëgg gërëm ñëpp parce que bëgg naa nga wayaat benn. ah Aliou laataa ñuy jeexal bu ko label. maa ngi baax a baax a baax. ban label ngi ñëw. ah pour l'instant nii daw ah, ma fenn. waaw non yow naa def ay son. Mm. xam naa ne ay fan yu néew di ngeen gis ay clip. yaa ngi liggéey ngi koy nuyu. Mara. Mm. gis nga sa bés. Mm. sax ñu coof ko. nañ wax li mu mën. ndaanaan la xanaa man sa bés avant may découvrir nigérien yi. moom gis naa ci moom beneen affaire. dina ci moom rek. waaw ndaanaan la boo xamante ni billaay bu ko nguuru Sénégal jàppale woon. Mm-hmm. ñu xam ne euh, jotoo participer ci kaay bi. kaay kooba bi non tout cas ñu ngi koy béggee bu baax a baax. maam ak loolu nag Mara. Euh. waaw. niveau bi romb na foofu. romb naa fa niveau laay waxee yow. très bien mais yaa ngi liggéey ak moom ci ay projet bu baax a baax a baax a baax. yow bàyyi numéro xale bi ngay jël ànd rek doo bàyyi ba pare sax. ah bàyyi ba pare bàyyi ba émission bi jeex. dafa bàyyi ma jël ko rek. moom nangu na de mi ngi jël téléphone bi yow jëlal. Malick Diaw borom MD. ba sa papa jàpp la ah jël ko. <laughs> non Virgile du waxantu. ah ay martoom la yor ak bëri. <laughs> aja la woon. ok eh, waaw di di nuyu sa bés di leen wax ni maa ngi man Alioune Gueye. Mm. maa ngi santaat bu baax di gërëm waa Guédiawaye di leen sant yéen ñaar. Mm. di sant waa 7TV. Mm. les ambianceurs ku fi ñëw rek ndaanaan la. waaw di leen wax ni nag fi nga ko jàpp foofu la. waaw euh, Malick Diaw borom MD production mi ngi nekk ba ca Italie ñëpp ko xam. waykat ñëpp ko xam moom tamit mi ngi may teg loxo bu baax producteurs yi ñu ngi ñëw. ok Alioune Gueye bu ñëwee rek di ngeen gis. jàppaguma benn date jàppaguma benn maa ngi dëxañu nekk samay projet samay son waaw ñëpp xam foo jëm nag. doo yegg maara dëgg la. moo tax samay projet ku yor du dina baax de. ba pare gis fit bi ak jom. di nuyu sama mbokk waalo waalo yëpp nag. Mm-hmm. parce que waalo waalo laa ci boole papa Assane Thiam. Mm-hmm. waaw di ñaanal moom kenn du ko tudd tëb ko. déedéet di nuyu père Habib. Mm-hmm. jara papa ju baax. ñi may doole dañoo bëri su ma libéré damay jub. waaw am na solo. Sénarine kontaan nañu ça a été un plaisir ñu dalal la ci plateau ambianceur comme ni nga ko waxee ku fi ñëw ku nekk ndaanaan nga donte xale nga. waaye gis nañu talent bi nga xamante ni euh, làmboo nga ko ñu ngi bëggee suñu frère Thiat ambiance borom yëmbal xam nga mi ngi waaj bu rëy la 18 bi ñu jëm incha allah rabbi bu soobee yàlla gën ngi ko ciy bëggee eh eh yéen émission bi jeexagul ñuy problème bi ñoom seen saal lañ ne ah mais <laughs> doo leen ñu bàyyi ñu yeggale kanam Thiat ambiance ñu ngi koy bëggee bu baax baax a baax di ko ñaanal jàmm ci bis boobu muy dëg euh, muy dëgmal spectacle lay nekk son et lumière foofu ca yëmbal di ci bëggee suñu Serigne Cheikh Mohamed Kane général ñu ngi ko ciy ñaanal moom itam suñu borom defal ko jàmm bu baax a baax di suñu xarit di suñu lépp alaaj Papa Ndiaye waaw on se donne rendez-vous suba insha ñu dellu si mais Idi Codé Diallo lañ am suba mm-hmm. moom nee na mooy loolu te ba ba léegi mm-hmm. dégg guma ko moom lañ am mais fu mu mënti nekk nañu woo mm-hmm. te xam ne suba moom moo aye incha allah jeudi am nañ beneen affaire di la wax ni maara bis ni ki tey waalo waalo la une femme waalo waalo un homme un mari waalo waalo mari waalo waalo wuyaay <laughs> déggul boobu ree wuyaay bete mbay mi mi ànd ak Aba kii rey na ma yow. non nga ne. nan <laughs> naa ma solo gaa bi. voilà nga ne lan. une saa waalo waalo. une mari un homme waalo waalo. <laughs> c'est bon. di sax nit yàlla yàlla defal la jàmm bëgg bay mu leen duur fay di ko ñaanal suñu borom defal ko jàmm bu baax a baax. alaaj Papa Ndiaye Thioune le 16 décembre nag bés am na xam naa suba dinañ ci yaatal de. <laughs> suba ñu dellu si ci le 16. ah jeex na bu soobee yàlla. incha allah Alioune. kontaan nañu bëggee nañu téléspectateurs yi ñu doon topp yëpp fu waaye mën a nekk doon ñu bàyyi xel rek jaajëfal nañ la kontaane leen bëggee Pape Maguette ci réalisation bi Pape ci son bi non Pape Maguette temps yi ngi koy teg ci xamul dara mi ngi koy teg ci code Pape moo woon ci son bi bëggee nañ ko moom itam bu baax a baax Papis Mbaye Adama ci production bi ak képp koo xamante ne mii ci kër gi waa rédaction journaliste yi ñu ngi leen di bëggee ñoom tamit am na ñoom bu euh, ambianceur. ñoom ñun lañ bëgg. dañuy bàyyi lañ doon def génn rédaction bi toog ci. salle seetaan ñoom lañ leen bëgg. ba ambianceur jeex ñu soog a dellu ci seen yëf Aliou ñu bàyyi la benn dernier morceau nga tëje ko suba incha allah ñu dellusiwaat ci beneen numéro. boo ko yaakaaree de. voilà ambiance li ma jaaxal mooy kee lan ngay li muy ree lu mu doon ambiance daa mel ni li ngay woye koy daanal xaw ma moom li ngay defa neex ko li muy def mayaat ma benn not ma xool mayaat ma dara ambiance ma ma xool jàmbal jàmbal jàmbal jàmbal loolu mu neex aja baba ngeen on se donne rendez-vous demain incha allah rabbi indi moom ñu xool booy mi ngi bëgg a rey Benjamin te yëf yi bokk